quand bi ñu jàkkaar non ñun am nañu majorité ba pare bi ñu amee Pape Diop am nañu 83. loolu mooy benn te kenn ci ñun nag. du fa jóge jëm fenn loolu lu ñu leer lu ñu wér la. parce que kenn ci ñun. Bamba le vote est secret de. waaw le vote est très secret. Mhm. mais ñu des irresponsables. Mhm. des gens très responsables ñoo nekk ci mhm. liste boobu. ñoo xam ne namuñu dara benn kenn mënu leen a ger. xanaa looloo tax ba léegi président nommé gul premier ministre ak gouvernement. non yàkkam yàkkamti moo ci amul. président bu ko neexee ba ñu nommé premier ministre amul yàkkamti. yàkkamti amatu ci bu ko neexee bàyyi d'ici un an nommé premier ministre amul yàkkamti. réew maa ngi liggéey mbir maa ngi dox. mais ci xibaar ne nañ le 12 même on nommera le premier ministre. ah man de président bi ñu installé assemblée bi dinañu dinañu nommer aussi le premier ministre. kooku discrétion président la moom mhm. moo ciy dogal mais li ma la mën a yëgal mooy camp bi ma bokk mi bennoo bokk yaakaar. Mhm. ñee ngi wut ay pexe mais kenn du ci deñ mhm. parce ñu mais ngeen di def pour jëlee ñeneen ñi fële indi ci yéen. ñu ngi yëglu pour parce que le problème c'est que juboo ñu seen dama lay wax wax. ñu ngi yëglu ñu ngi yëglu pour ñëw. man maa ko du ma wax damaa dof nag secret prof secret politique du ma la ko wax li ma la mën a yëgal mooy juboo ñu seen biir. Hmm. ndax comportement Ousmane Sonko li mu def yu yebaate la. Hmm. nan ngay ànd ak nit ànd ak yeew yi hmm. ñu tool ci fal nga bëgg a am candidat président assemblée nga bàyyi fi waa yi nga dem ci waa wallu ñeen seen candidat doy na ma ñun waa Yewwi moom la ñuy voteel ku mel ni Barthélemy ku ak ñeneen dañ koo bañ te ñu xam lenn tamit. sëriñ Moustapha Sy ñàkkul fayda te sëriñ Moustapha Sy toogam ci Yewwi kóllëreem la ak Khalifa Sall tey jii xalifa Sall la gën a jege Ousmane Sonko Ousmane Sonko fi ñu toll nii PDS la wutali mais nag enjeu yi bokkul parce que PDS mënoo fexe Abdoulaye Wade ne Sénégal mu noo fexe ba Ousmane Sonko lonk ko parce que li Ousmane Sonko la bëgg loolu la bëggal doomam te tey Ousmane Sonko Barthélemy Diaz am doole assemblée du ko arrangé ay Aïdara am doole assemblée mbaa kenn ku mën a poser candidature présidentielle da koy gêner Ousmane Sonko boo gisee mu bëgg a lebal waa PDS teranga parce que daa bëgg bu Karim Wade mënul nekk candidat ñu fay ko borom. tey Khalifa Sall ñàkk a nekk candidat ñoom moo leen gënal Ousmane Sonko dafay bëgg a des moom kese te jàpp nañ tamit ku mel ni Barth bu Khalifa mënul dem ku mel ni Barth mën naa fu day dem te kon du bëgg a Barth ëpp ko doole assemblée hmm. am na loo xam ne a imposer ñoom ñu ñëw ci dynamique parce que ñëw. dana danañu jàll ñàkk ñëw dinañ jàll moo tax ñu baree bari intérêt réew mi tax na danañ ñëw mënuñu koo fësal. mais bu bis baa da nga ni Bamba waxoon na ma ko ñu bëree bëri dinañ ñëw jàppale majorité présidentielle bi. teg ma may tuuti kan ak kan jàpp. mais su ma la ko fa jege. mais su ma la ko waxoon tey ñu seeti ko dal ci kawam. wala bu amee ñu ni ko yow la vote bi hmm. ba keroog amuñu plus de 83 da nga ni Bamba ànd la ak ma waxoon. mais Bamba loolu tamit ndax ànd na ak éthique. ànd na ak éthique parce que. dafay am foo wala éthique politique ngeen ko bëgg a tuddee. léegi loolu dama ne la ànd na ak éthique. ndax député yi jàll ci département bi ñun ñee leen taboon teg leen député yi nga xam ne suppléant la woon ñu yóbbu leen ñu dem élection yéene wuñu leen woon doon député ay remplaçant lañ leen defoon bu seen yéene du ñu dem assemblée parce que élection législative ci àdduna liste suppléant mosul dem assemblée parce que pour lan mm-hmm. liste nationale bi mënoo am 100 pour cent même boo amee quatre-vingt pour cent ci listu cinquante-trois ay quarante ay dem kon les premiers suppléants mooy des ci bi kon ñee duñu mës a dugg assemblée ñii ñi nga xam ne dañ leen dajale woon ci poubelle rek nga xam ne suppléant moom koy def da ngay jël benn góor benn jigéen par hasard nii rek di dugal ñoom noonu lañu amee chance jàll ci kon nag bu ñuy parce que campagne bi ñëpp xam nañu mandature bi lu mu yàgg yàgg yàgg élection présidentielle ku falu président da koy tas parce que dafa xaw a serré mm. parce que kii doog a falu day am le vent en poupe day bëgg amaat député yu bëree bëri am au moins deux tiers pour loi constitutionnelle yi. kon ku mën a falu day tas assemblée bi. 24 mois lay duré kon. ci 24 mois yooyu bu ñu demaatee di defaraat liste du ñii ñooy dugg ñoom Déthié Fall la ñuy dugal ak ñoom Aïda Mbodj ak ñoom Habib kon ñii dofuñu jënd jàpp leen. donc yow euh, cas de figure bu mu mën doon même bi nga évoqué ne da ngeen di euh, utal euh, Macky Sall encore pour mu toog fi bu Macky Sall toogaatoon 2024 day tas assemblée bi. ah mais man maa jàpp loolu. Hmm. parce que man maa loolu laa xam. ci dama ne même bu dee Macky Sall da kay non Macky Sall waxuma ko mais hmm. man maa jàpp ni. Hmm. kiy doog a falu booy doog a falu. doole nga ñëwee. te pour mandat ak confiance bi ñu la jox pour nga falu. boo ko laajaatee pour ñu accompagner la nga yëggal yéen i population dala koy accordeel kon ku mën a falu présidentiel bu tasee assemble bi bu delluwaatee laaj ci six mois day am majorité. moo tax ma jàpp ni député yi doog falu xam nañu mandat wu vingt quatre mois la ñu te mandat vingt 24 mois boobu bu ñuy def liste bi ñuy daal ci suppléant kenn du ci jàll parce que titulaire yaa ngi xaar loolu pour mën a dugg dem assemblée. ban profil premier ministre nga gis ñu bëree ngi werante ñi ne technocrate wala un politique ñenn ñi nañ na couper la poire en deux technopoliticien. comme booboo gën ñëpp nag. Ah. kuy dóor di saagaa mën ñëpp. Hmm. ki technocrate bi mën politique. Mhm. moo mën ñëpp parce que fi ñu toll ni président soxla parce que fi ñu jëm soxla nañu ay borom xam-xam. Hmm. soxla nañ tamit ay combattant. Mhm. parce que nappe bi moo war a jeex nappe bi ñun ñi nappe di xoqatal ñun ñi moo war a jeex gis nga politique boo ko mënee bu njëkk ba lan moo fi xewoon non liste Dakar non non dina jàll du jàll non non bu ñun bu ñu ah beneen nga toog bu ñu bokkul ci élection yi élection du am ñu jékki ba si ak ni waa garaaw élection dina am waaye ñooy kii ñu toog ba si ak cohabitation. Mm. te cohabitation xam na nañu mënatul am léegi ñu ngi ci leneen politique mooy doxee noonu. tey gannaaw suba bu ñu fekkee ni fal nañu bureau assemblée bi. Mm-hmm. ñu jël ko léegi gouvernement la ñuy xaar bu gouvernement pare mm-hmm. ñu ngi jëm ci troisième mandat parce que amatu lu ñu wax. Mm. donc politique moo tëdd noonu mais loolu am na lu fi jaar. Mm-hmm. yaakaar naa ni boo àndeek ay nit ci coalition. ngeen di doog a jóge élection demagu leen teg bureau assemblée bi. nga jugee fële tëb nii ak nu man ci doon dañ may fexeel man candidat laa ci présidentielle yi te waxoo ña nga àndaloon kon yaakaar naa ni am na beddiku bu commencé am. beddiku bi mooy leen Ousmane Sonko. fi ñu toll yëfi tàppet la def. yëfi tàppet weesuwul waxtaanagu leen xool leen ndax coalition day am candidat nga teel a jóg ni man candidat laa moo tax ay Ahmed Aïdara jugee moo tax Gakou jugee fële. moo tax Bougane jóge fële te yeneen dina jóg. te li ci nekk mooy yéene wuñu Karim Wade ñëwaat parce que bu Karim Wade ñëwee wàllu day am candidat am. yéene wuñu Khalifa Sall aussi am amnistie dem élection. moo tax tey man ku sawar laa pour xalifa Sall ak Karim Wade bokk ci élection présidentielle yi ñëw. bu keroogee ku nekk xam la ngay peese. justement bu boobaa bantaxawaay taxawaay wala fan ngeen koy jaare yow ndax bokk nga ci ñi nga xam ne donc loi d'amnistie wala. ñu changer loi bi directement rek ci code électoral bi ñu mën bokkaat ban yoon nga gis. bu ci mën ci am te mu mhm. gaaw. Mhm. ànd naa ci parce que Karim Wade bu bokkee ci élection bi. Mhm. raf taaral na politique. xalifa Sall bu ci bokkee taaral na politique te du teree yi gagné. bu keroogee lan la ñuy permettre. Ousmane Sonko wéet ci saagakatam yi mu xam ne li mu peese bariwul parce que élection bi quartier boo dem ñu ni yi moo fa gagné doo fa génne Yewwi bu mën fa ne bu taxawu Séné Benno Siggil Sénégal en 2009. Mm. mais noonu la ñu def jël ndakaaru gi ba bàyyi fi ñetti commune parcelle lañ fi bàyyi woon ak Yoff ak Colobane. Mm. bi ñëwee 2014 aussi Yoff kese lañ fi bàyyi woon boobu Macky Sall mooy président ñu gagné lépp bàyyi fi Yoff kese. vent jiboka bi muy doog a jóg noonu la def ñëw xa xëy am 11 députés. Mm. vent bu jógee da nga koy nangu. mais nag du yàgg. tey commencé naa tas parce que tey bi intérêt yi jógee ba nga xam ne législative bi jàll na déggatoo fi. cohabita parce que cohabitation ci seen biir ñoom sax commencé naa yàqu. ndax seen toogaay neexatul. ndax tey dañu noon woon après ku nekk da ngay waajal sa bopp pour présidentielle ku dem ba jekku nekk numéro 2 jàkkaarloo nguur gi ñeneen ñi jàppale la mais kan mooy bëgg a jël troisième pour nekk douzième gaynde ñëpp deuxième wala premier lañ bëgg a jël. tey ku nekk yaa ngi waajal sa bopp Ousmane Sonko nag loolu la comprendre. moo tax tey candidature Khalifa Sall ak candidature Karim Wade man de bokk naa ci ñu koy rafetlu. bu keroogee ku nekk di nga xam sa gannaaw lan lay pese.